Euh, salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi ñu ñëwaat ci niñ leen ko diggee woon am na mbokk moo ko doon soñ ci commentaire yi mooy ci secret boo xamante ne jamono ji ñu bëree bëri da leen di dal muy wàllum néew kàttan muy wàllum wàllum néew kàttan mooy gaaw a yëg sa bopp bi ci mbiru soxna bu ko defee secret bi ñu leen ciy jox mi ngi nekk ci خسيدة جيني وخ تحفة المتدرعين تحفة المتدرعين لكن لما تيجي بقى هري موي بيمام دف دف دف جسلا دف لجاي أنا دف جسلا جوني جوني لا أو كنت سكر يوحنا زاد من عندهم كبارتاس وأنا لين كبارتاس داخ لأن يوحنا العلم خم خم مم داي دول لي كتي بوكو جوخي واي بوكو جوخي داي واني كو يزيد بكسرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا صدقته هو العصب المهند ليس ينبو تصيب به مقاتل من أردت دينغا أه، تحفة المتدرعين قصيدة يميلا قصيدة توصل لا نيت كي خامي دا ام بروبليم تي والو فيبل أه، سيكسيال ما والو نيو كاتام نوت ام ندخ ني نيما ندخ مو سيل bu amee ndoxum samsam nag moo ca gënati ndax ndoxum samsam dafa am particularité bu ma am ndax yonent bi suñ borom defal la sam sam lima suri bala bi jamono bi nga koy naan lo ca fas ci aajo yalla defal la lola motax boko mané am mo gën utal sam-sam nga jang ci qasida gi boko ko nga jang lu ko ko xane man na jang ta man magharijul huruf mu jangal la ko ca lim bam ko ci jang nak moy 14 fois lim bu mu manam bu ben dum of ko ci ni tafliko ci jangat benen tafliko ci jangat benen tafli ko ci ba mu mat 14 fois nga gël ko def ko ndox di ko naan yow mi nga xam ne da nga am faiblesse sexuelle bu ko defee ni ma ko waxee sànq boo ko jàng na nga jàngloo ko koo xam ne ku man maxaarijul xuruuf la te man xasida gi parce que xasida gi am nañu ko bind ñu bëree bëri waaye ci biir am na ci benn bayit boo xamante ne boo xoolee ñi koy bind ñu bëri ca nañ koy maase dañ cay faral di def njuumte mooy mooy bayit bi mooy bi awsin ibni aamirin wa hërëmi wa hërëmi la ñu bëri di bind te wa hërëmi la ñu bind raagi ci suuf lañ ko war a maas dégg nga loolu nag ci xata ci ñiy bindkat la bindkat yi léeg-léeg ci ñiy maas xëy na problème mu grammaire da ciy am waaye xam ku xam sëñ tubaa nga xam ne moom suñ borom da koo tàggatal làkku arab nusi ani nuural lisaana wal kitaab azmana xidmati la daa ahlil kitaab nee na làkku arab yàlla moo ma ko solal boppam moo ma ko solal boppam kon ci ñi bind lay doon leg leg day bari bari na ci xasida yu bari bari lay feej waye jàngalul tuhfatul mutadariina katus fois ci am ndox nga di naan nga xol yow mi am walu new katan ci walu sey insha allah rabbul alamin suñ borom dana ko delo ci watal xasida gi waxna amna waxnañ ne boko ko ñeen fukki fan ak ben yu tegaloo ñeen fukki fan ak ben yu tegaloo te jëlaloo ci ben fan bu de da nga nekkon wàlliw bu yaq da nga ci wat dañu wax ne boko ñeen fukki fan yu tegaloo te ci ben bis am nga garaatu wàlliw boo ko yëgee ak boo ko yëgul kon wutal ku sell mu jàngal la ko xasida gi moo nekk nii bismillahi rrahmani rrahim wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa sallam هذه تحفة المتدرعين في التوسل بأسماء المفضلين الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي النوال الوالي هذا وإني اليوم ذو توسلي له بأسماء ذوي التفضل فقلت يا قريب يا مجيب صل على الذي به تجيب واقبل به نظمي هذا يا كريم وهب لمن به يناجي ما يروم ربي بنوح وبإبراهيم لاغفر ذنوبي واكفني رجيما وكن بموسى وبجاه عيسى واقيني دنيا وأخرى بوسى وبمحمد رسول الله عليه خير صلوات الله ثم عليهم ليهب إيمانا قد صاحب الإسلام والإحسان بحرمة الصديق والفاروق جلي بالإخلاص والتوفيق بحق عثمان أقي النورين وبعلي والد السبتين هب لي في الدنيا ما أخرى يا النور والعلو والمزايا نون لك توبي جانكو بام جيخ بو خولي قصيدك قصيدك نانغو نيان لا بخ ني وقبل به نظم يا هذا يا كريم يو يالا مو اجي تيدمي نانغا ما نانغول سما نيان جيغا خاني ديفناكو موي توسل جي تور صحابه nga nangul mako waye nak wahab li man bihi yunaji ma yarum kep ku ci ñaan lam ca ñaan nang ko ko defale nona moo tax gu barkel la te sëriñ tubaa radiallahu anhu lepp lu mu ñaan yalla avant mu koy ñaan yalla ko yalla may ba noppi nak dane suñ borom dane ma ahmadu may ñaan may nalako waye nak deew bëgg nga di ma ñaan ndax yow ni may ñaane dafa neex kon qasida gu am solo moy tuhfatul mutadarriina yow mi am neew katan ci walu euh, sey jëlal butéelu ndox bo amé ndoxu kire ndoxu ki ndoxu Euh, samsam moo ca gën boo amul doolay man ndoxu am samsam nga jënd o minérale mooy ndoxu filtre yi ñuy jaay ci boutique yi nga dajj ko un litre bi nga jàng ci 14 tuhfatul mutadarriina yow mi nga xamante ne dalagu la te nga ragal mu dalaat dee ko jàng 14 fois bu dee wàllu mbirum soxna moom suñ borom dana la ci defal tawfiix insha allah rabbal alamin ba da ko mën a amee na nga ko bëgg insha allah képp ko ko jëfandikoo yàlla la ci yàlla defal tawfiix boo ko mënul jàng jàngin bu sell utal ko sell mu jàngal la ko ci butéel kas la ko bu dente ne khasi xaside mom ñi ngi fep ci bitim rew fep ñanga fa waye bu demee ba teul tamit boko eh, ki gaay nañ la ko jàngal kasteel la ko joxal la ko ci GP ñu andil la ko waaye boo demee bitim rew mom ñu classe ñoom maam taalakan gaa ngi fi jàngatu khasi yi fa tabarakala fo dem ñu jangal la 14 tuhfatu fatu man nga ko jang ci ben jaraay du dara ndax li ma yor juroom ñaari tuhfatu la dama koy jang ba bu set kon 14 eh, tuhfatu fatu du dara jang ko ci ben jotaay yomb na am néew katan ci walu say def ko nga di ko nga xol def gis la secret bu wér a wér la bem ñi nga xamantene dañu am soxna ma leer la ñi am soxna ñu jox leen ko munuñ ko munuñ ci àgg maanaam léeg-léeg nga takk ab séet doo ci mën a àgg wala sa kanam du mën a ngoo jóg yooyu xeet yooyu léeg-léeg ñu ne takk xala la wala ay rab la boo defee secret bi mooy 14 toxfatu yi boo ko afee ci ndox boo koy naan suñ borom subhaanahu wa taala di la tàggaleeg loola loolu moom mbokk yi ñu ciy jëflanteel xam ko bu baax baax boo koy naan yàlla di la tàggaleeg tawat jooju incha allah rabbal alamin kon loolu la ñëw danañ leen ko partagé ci wàllu néew kàttan mooy tox fata du ma ta dara ay ne quatorze fois nga jàng ko ci ndox di ko naan tawfeex la ku mu dalagul tamit mën nga koy def ngir yàlla musal la ci mu bañ laa dal in uridu illa al islaha mastata'tu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu